I never see. man ittaxada min dalika ma yuiinuhu ala ñaanal jàmm kon mbokk yi dee mbindeef la bu mu mel ni dee lii mooy faar ci ku bakkanam boppam kon ana kan moo mën a mucc ci ñeneen ñu ñëw ñooñu ñoom ñooy max yi max yi seen mission mooy ñooñu ñu tee moom ku dem mën ngaa ñibbisi waaye ku ñu ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñett ñiy topp néew waay waay ñaar ñi kër yi defee sa jëf nga ne man rek maa fi des rek man rek maa doon ànd ak yow sa jëf guddi yaag moom bëccëg yaag moom tukki yaag moom dëkk yaag moom kon kii mooy xaritu benn bakkan xaritu benn bakkan mooy sa jëf yàlla ne lu baax su fekkee lu baax la fay laay xam su fekkee lu bon la yàlla ci yàlla musal yonent bi nee na nit ku nekk am na ñetti xarit benn xarit bi da lay wax ni lépp loo def la nga fa denc moomu mbokk yi alal nekkul xarit nekkul xarit boo xam ne bu naanee kaas jox la kooku du xarit xarit bi gën xarit mooy ki la naan booyee ngaan jàkkale loolu dana ne nan dem julli ji kooku mooy sa xarit te yow ci àdduna kooku nga gën a bañ ndax ki la naan nan dem julli ji li nga koy tuddee intégriste la kii dafa soof waay dañuy jaay di jaamu yàlla nangam nangam nangam kooku ngay gën a bañ ki nga jàpp ne mooy sa xarit na mooy ki nga xam ni su xëccee mel ba ñaari yoon paas na su séenee xale bu jigéen lëngu ko ànd ak yow boo ànd ak jigéen wala mooy Moussa Faye agresseur bi gën a bon ci agresseur ku fi nekk ñun ñëpp a te yàlla kenn xamul kuy yem ak kenn xam xataa yonent bi sallallahu alayhi wa lu ko ci yàlla waxul xamoo kon mbiru àjjana ak safara du suñu domaine waaye li ñu xam mooy suñu réew bokk na ci réew yi ma gën a jaar Sénégal yi day dee duñu ko waxal mukk lu baax lu bon rek lañ koy wax diw héros national la grand tambour majeur grand tëggkat la grand théâtre kat la dem na Hong Kong dem na Bangkok yaa xii lii lan lay jëriñ jullit la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nit dee génn àdduna yonent bi nee na boo xam ne lu baax waxal boo xam ne léegi naan dëggkat bu mag li mu yor ci ay dëggkat subhanallah yéen a ngi koy toroxal yéen a ngi koy yóbbu sa kër yéen a ngi koy waxal lu bon moom xam na li mu doon def mais bu leen ko fàttali subhanallah la ilaha illallah mbokk yi sénégalais baaxuñu yi ñuy wax baaxul rajo yëpp diw dee na diw kay moo jàngal diw dëgg. moom li mu fàttali moo gën a moo gën a yées nee na man man li ma gën a kontaanloo kul wallaahu ahad dëgg sama yaram di daw li ñu lay waxal baaxul de tabaxal la ay monument tabaxal la ay centre de danse tuddee lu mel noonu dara yaa ko doon jëf yaa ko doon jëf yàlla yàlla jéggal yàlla yàlla yërëm waaye ku bëgg ñu waxal la lu baax il faut nga def lu baax de sa sëriñ mënu ci dara Muhammad mënu ci dara même Muhammad sallallahu alayhi bu doon ci moom nga jébbalu nga nekk tëj kat boo dee ne yiw la wax mbokk yi dañ leen ji lii ci suñu réew baaxut lépp lu waay di def ñun ñëpp a yem kenn ku nekk bis dana jot da nga dellu mbokk yi fan lañ jàngee ci alquran ni dëgg métier la fekk métier nit dees nga xam ne jëfam yi ko waroon a waxal di ko li ñuy wane ci semaine bi yëpp du ñu wane tudd yàlla du ñu wane lu baax ci moom li ñuy wane yépp mooy luy fàttali ne kii lu bon la doon def xanaa xamu leen ki dee ci bàmmeel ba mu ñëw dañ koy examiner duñ ko laaj ndax yaa daa ko dëgg ci Afrique de déedéet déedéet man ràmbuka lañ koy wax ana kan mooy sama yàlla jëm deuxième jàngal bi mooy mbokk yi alal bi ngay wut ci àdduna bul foog ni mukk mukk fii julli nga ma def baax na sénégalais noonu la ñu déggee diine loolu mooy danger ce qui est danger trop mais danger mooy yow daal loolu loo def baax na c'est que julli rek moo tax ni borom tama bi day tëgg tëgg tëgg ba ñàkk wala nga dem jàpp kàmbur julli normal la moo tax nga gis danseur bi fecckat bi day fekk fekk ba xolam sedd bu julli jotee mu julli parce que dañu koo gëmloo ne loo mënti def rek boo jullee baax na fekk dañu laa nax inna salaat bii da ngay waxal ne la la yàlla sant lii yàlla li mu tere da li mu sant defal li mu tere bàyyi loolu moom mooy man rabbu li ñu lay laaj ci bàmmeel luy sa diine lu ñu mooy sa téere lu ñu lay laaj ci mooy loolu wax ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nañ leen dellu ginnaaw te tiit jullit war nay tiit ci lépp loo xamante ne alal la koy jox te du ko jox honneur li la dul jox honneur mooy lépp la dul jox jaamu yàlla jamono safara yaa nañ ci yàlla musal li gën a daangare nag mooy bépp bàkkaar bu yóbbu ay nit musiba looy def di ko def loo ay nit musiba la yàlla ñu yàlla jéggal jéggal leen yàlla ñu yàlla defal tawfiq dafa ko mboolem jullit mbokk yi kenn ku nekk ci ñun na bàyyi xel képp ku doon jëf lu neexul gaawal bàyyi ko gaawal bàyyi ko dégg ngeen waa ji nee noonu xaritam bi dëkk gaañu lu mu doon wax wax ci moom wax a wax a wax topp mi ngi noonu de hey allahu akbar lii lañ ci la waroon a jàngale Sénégal déy lañ ci waroon a def def ci nag ay ay ay débat mais gars yi war nañoo bàyyi xelam ah. nga taxaw wax nit ba pare ndeke xaalis ba ci la ñu wax la ngay wax bi mi ngi naan ay heure rek nga war a wax ko mu jeex ay heure xoolal six heures ci ngay wax sa xarit ñoo ànd fii ñoo jaar fii ñoo tëggandoo fii ñoo defaroon naan dox diw bu baax la diw bu baax la huit heures nga dem ana kan ci ñun moo mën a garanti loolu ci ñun ku xam ci ñun fooy dee wa maa tadri nafsun maadaa taksibu gadan wa maa tadri nafsun bi ayyi ardin tamuut fexeel ba bàyyi loo xam ni santuñ la nga fi kër santuñ la nga bàyyi fi oto santuñ la nga bàyyi fi alal sant na nga bàyyi fi lu dul jeex xam nga lu ñuy wax nga bàyyi fi waaye bàyyi jëf bu baax jëf bu baax nag yi wax ne déedéet déedéet xam nga nguuru léegi du ñu favoriser lu baax lu bon rek la ñuy favoriser fexeel bàyyi fi jëf yoo xam ne booy dem da nga naan yóbbu leen ma gaaw yóbbu leen ma gaaw allahumma hdina fi billaahi rabbil alamin allahumma hdina fi billaahi rabbil alamin allahumma lakal hamdu hatta gaañu ñëpp yal na yàlla jéggal leen yal na yàlla baal leen seeni ñaawteef yal na yàlla fëkkal leen seeni mon-mon yal na yàlla xaare leen àjjana képp kuy wax laa ilaha illa allah yal na yàlla